أهلا يا نيب الحمد لله ينق بين يني لله رب العالمين ngen sant yalla xamne yalla sopna len ñu sant yalla الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والجاه إلهي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ حضوري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر قنا العذاب وجد كن دافعا أبدا شر النفوس كذا شر الذي حسد ونجي يا ربنا لنا الهوى والطغى في ذلك المحضر ولتعطينا الرشد أدعوك بالشعر ذي مستفعل فاعل فضلا وتوفيق قول وبسط المدد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakaatu mbokk jullit ñi yéen ñi ñuy ñu ngi leen di nuyu di ñëwaat ak yéen ba tey ci programme waajal gàmm jëloon nañ commencement wu qasida abal qalbu illa an yakuna mutayyama xalifa garamin bin nabiyi muhayyama ñu xaajoon qasida bi ñu ñëw pour continuer fi Baay Ñas di wax naan fa in tasaluni an habibi wa sayyidi fa taaha habibullahi mal gayru ma wa ma ñu ngi jégalu tamit ci kàddu gi xaw a soj la rek بايسني فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطاها حبيب الله ما الغير ما وما فوقتي وساعاتي صرفت لذكره صلاة ومدحا منه قد صرت جيلما فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبعي ومن رام عود الأمس يوما وأيوما بين دوخ تيم بغيلم تيننتو صلى الله عليه وسلم ci waxin bo xamanteni dana jafe lol nga gis min al muhaqiqiina kuy waxé non baye nef mu ne fa in tasaluni su ngeen ma laaje an habibi ci sama soppe wa sayyidi ak sama sang boba dana len tont ne len qaha yenent bi habibullah moy soppe yàlla bi mal ghayru dut kenen ma wa ma dede te du ko nek kenen manam man Baye Niass ku ma laaj kan moy sama soppe ak kan moy sama sang yenent bi soppe ak yàlla bi moy sama soppe wala bu ñu ma laajee kan mooy sama soppe ak kan mooy sama sang nañu xam ne yenent bi mooy soppeek yàlla tabaraka wa taala bàyyi ñes mu ne fa waxtu yi samay waxtu wa saaat yi ba tey samay waxtu yëpp saraftu jeexal naa ko li zikrihi ci turam moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci tudd ko ci di julli ci moom ak di ko tagg moom moo ko firil boppam mu ne salaatan ci julli ci moom wa madhan minhu ak di ko tagg moom yenent bi xat surtout ci laa mujjee jay la maa nekk sang nekk ku mag mune jeexal gi ma jeexal samay waxtu ci tag yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak di julli ci mom ci la mujjé ma nek sang mune kon fa man rama kep kuy sàkku dar ki dabma ma nabiyina ci cofeel ak suñu yenent bi képp kuy ak man ci bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ah mune fa faqad raama amran mustahilan wala mustahalan muharrama كيف كوي روانتك من بايت بجيان تبي صلى الله عليه وسلم من يعني ساق مير محمد تاني لجوم ولا مل محرام لا لجوم بتشي خل ده حرام تي أوتي كورك لول لبغا ما أنا بقول حرام تي خل نت كي دب ما تي بجيان تبي صلى الله عليه وسلم بس دم نبي وفنن نان حالي مع المصطفى لا عقل يدركه من سما حال أجيان تبي صلى الله عليه وسلم خل منو كادب بدور وان بني بني ياتل دين عندي أي وقت يبري أي تكتل يو وانه dab ko ci mbëggeel mbir la moo xam ne mënut nekk comme ni mu ko waxee rek fa man raama darkii képp kuy sàkku dab ma fishtiyaaqi ci bëgg nabiina yenent yenent sama mooy suñu yenent faqad wallahi raama moo ngi sàkku amran mbir mustaxaalar gu jomb muharrama gu xaraam ñu ne ko nu mu mel mu ne ka man raama maskal badri yawman bi asbuci wa man raama awdal amsi yawman wa aywama mu ne ka man raama dafa mel ni kuy sàkku maskal badri laalee weer wi yow man ci bis bi asbu'i ci baaraamam dafa mel ni ku taxaw rek ne day laalee weer wi ak baaraamam mu wa man raama awdal amsi dafa mel ni tamit man ka nga xamante ne raama sàkku na amsi delloo si démb bésu démb bi mu delloowaat ko yow man mu def ko tey wa ay wama ak ay bés yu ñëw maanaam képp koo xamante ne sàkku loolu dafa mel rek ku taxaw di jéem laal weer wi wala kuy jéem a si démb def ko tey mu ne waat kaman dafa mel ni ka nga xam ne raama sàkku na darkal wasfi jot melo meloog yenentu bi sallallahu alayhi wasallam maanaam tagg yenentu bi ba jot meloom dafa mel noonu rek lay mel mu ne xad aksaru wallahi bëril nañ xad aksaru maanaam taggkat yi tagg nañ lool xaabaabal nañ wax nañ lu nekk ci yenentu bi sallallahu alayhi wasallam waaye ba tey jotuñu dëgg-dëgg meloom mu ne fa aasartu xubbal mustafa duna gayrihi fa aasartu jeexatal naa jeexital naa ci man ci sama xol xubbal Moustapha bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam duuna gayrihi walis keneen ku dut moom sama xol jeexital na ci bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba walis ku dut moom mu ne walaw umma kulsuumin walaw kaana mariama même bu doon ne umma kulsuum mii la wala mariam la dégg nañ ci bàyyi tuuti radiallahu anhu mu ne lii ñaar ñi ay soxnaay Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu la woon ba muy bind xasida bi ñoo ngi teew mu jël misaal ci ñoom ne leen man bëgguma kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu liñ ciy déggee mooy même su ma bëggee nit day fekk ne dayoog cëram ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom laa ko bëggee waaye du moom ndax yonent bi rek laa bëgg moo tax mu ne fa aasartu jeexital naa ci xubbal Moustapha bëgg yonent bi duuna xayrihi walis keneen ku dul moom walaw umma kulsuumin donte ne umma kulsuum mii la walaw kaana Mariama donte ne Mariam la am na tamit ñuy wax ne ay doomam lañ. mu ne fa wallaahi maa ngi giñ ci yàlla maa fil qalbi amul ci xol bi xaddun cër li gayrihi kudut yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sama xol bi kudut yenent bi amul si cër mu ne fa gayru rasulillahi fa gayru kudut rasulillahi yenent yàlla bi laysa li taalama duwut sax ku ñuy xam duwut sax koo xamante ne xam naa ko maanaam mooy firi li ma waxoon léegi rek moom ñépp mu ngi leen di xoolee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñëpp ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam lañ joggé waye ku nekk sa ndono ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam muy gën kawe mbëggeelam ci yow di gën kawe radiyallahu anhu mu ni ashaara na mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam ila muznin jëm ci mu tudd niir yi al muzn mooy niir yàlla wax na ci alquran a antum anzaltumuhu min al muzni am nahnu al munzilun kon Baye ñas ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam ashara joxoj na ila muznin jëm ci na ko olof di waxee niir yi mu ne fa saala mu mujj di sotteeku mu sarmadan ci lu ñu sax maanaam ci bekkoor yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa joxoñ niir bi rek taw commencé di yureeku mu ne naka noonu wa idraama maskal maa amsaka mulhama ba ndox mi sotteekoo di wal di walangan naka noonu tamit ba mu nammee pour téye ko rek dafa téye ndox mi mu ne wa inna qurayshan waa quraysh ayabuuhu sikkal nañ ko wa sagaru jéem nañ kaa tuutil وشق له خوتل نينكو موم يننتو بي صلى الله عليه وسلم ذل جو جو بي بدرا آه، ويروي معظما مودي كونيو ماغال مانام دا فا ام سي وا قريش ني نون دون لغم لودن غا وي خوتي ويروي ني يننتو بي صلى الله عليه وسلم ساكو تي يالا مو خوتل كو ويروي يالا خوتل كو با قريش يب نيغي جانوك موم يالا لو نون واخنا كو سي القران مو اقتربت الساعه وانشق القمر مو ني يوم القيامه جوبسينا te weer wi xotti nañ ba tey muy liim ay karaama ay mujiza yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa ruddat delloo nañ la huuñeel ko shamsun weer wi ah shamsun jant bi bu ayda ghurubiha ginnaaw ba mu ba mu sooyee ba pare jant bi soow ba tey ñu ne ko boo bëggee ñu gëm la jant bi soow nii da koy fenkalaat mu ne ñu indi laatal ko jant bi ginnaaw ba nga xamee ne jant bi soow na sallallahu alayhi mu ne wa id kaddabu bañ ko weddee moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam قد والله أنزل واتنا الحق يالا محكما القرآن بيني أحمد ممي أت من وحدما وحدما دانل أحزابا أي أي مولو برمية كفه تي وسار جم وسار لخوم رك يسوف يالا وحنا تي القرآن وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى بعسان دي ساندي و من يالا ما ساندي سيرو بوبنون وعهمني yenent bi sallallahu alayhi wasallam sandina ko yeferi ci souf su nekkon ci loxom ñom ñëpp ñu xalangu daanu melni ñu ñu sandi ay xej mom la baye di fàttaliku fi mu ne wa hadama daanel la ahzaban ay mbooloo yi kurélu armée bi ramyati kaffihi ci sàndik tenk loxom mu ne fa ya ajaban e kawtef min ramihi ci sànnem googu noonu xiina haddama ba mu daanelee mbooloo yooyu noonu ak armée yooyu mu ne xadaa jubal na allahu yàlla aqwaam ay ñoñ bi nuuri xawaariqin ci leer ak mucjisa leer ak kéemtaan yi yonent bi salaa sallam di jëf am na ay nit ñoo xamante ni ci kéemtaan rek doy na leen pour ñu nangu ndax yonent nag ala kulli xaalin faaw mu indi kéemtaan pour nit muy mun a dëggal ne moom yàlla moo ko yóndi ak yonent bu mu mënti doon yàlla joxaale na ko ay mucjisa yàlla wax na ci alquran ne وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم يعني أنا أمول بن يننت لولتنا إبليس ديم نيو بور خدم المساجم آه، واي نيو كو دغر كيمتان نسخ الفخف الشيطان نخ يالا أجي خمل أجي خرنلا كون يننت بو نيك رك فاوغا أم كيمتان yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kéemtaanam bu gën a rëy mooy alquran waaye ànd ak loolu daan na def xar baax yoo xamante ni ñi jiitu kenn ci ñoom defu ko moo tax bàyyi mu ne hadallaahu yàlla jubal na aqwaaman ay ñoñ bi nuuri xawaariqin ci leer ak kéem kéemtaan yooyu mu ne waaye nag wa bi sayfi ci ngànnaay ci jaasi yahdillaahu la yàlla du jubalee man ka nga xamante ne kaana nekk na ajrama di ku fi perlu waa koo xamante ni kàccoor la maanaam bépp kàccoor nag yàlla ci jaasi la lay jubale mu ne yufiidu moo ngi jëriñ moom yenentu bi sallallahu alayhi wasallam uluman ay xam-xam faaidatin yuy mabbastiku di tuuru wa magnama ak yoo xamante ne tamit dañuy woomal mu ne yubiidu moo ngi delloo moo ngi soril juyushan ay armée aram-raman yu rëy yu bari li dalaali ñeel yi nga xamante ne ay ay armée lañ ñeel réer maanaam yenentu bi sallallahu alayhi wasallam xeex na ak ay mbooloo yoo xamante dara taxu leen a taxaw lu dut pour xeex dëgg neen des fi waaye mu ne yenent boobu sallallahu alayhi wasallam yu biidu na daan na soril daan na dàkk juyushan ay arme aram raman yu rëy yu màgg li dalaali ngir taxawal neen ñoom pour ñu taxawal neen moom mu dàkk neen jóge fi mu ne fa amma matale na hudaahu gi al arda ak suuf si mbooleem seen karhan ci mu naqari wa taatan ak mu neex yëpp maanaam mu neex ak mu naqari yëpp mom moom njubam gi matale na àdduna bi yeb bu dul won li yàlla wax ci alquran ne walaw sha Allah la jaalakum ummatan wahida bu dul won ne man la so kon de bu ma sooboon dinaa def ben xet kon bu boobaa ñëppay dugg ci diine bi nga xamanteni mom moy diine deug mom moy diine maandu mom moy diine jam waye nak yàlla kaddom jituna na ci fala budde rek am ño xamanteni dañuy am ño xamanteni dañuy gëm baye Ñas mu ne fa urbun arabiy wa ujmun ak kenen kudut arab arshada mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam jubal na alkulla mbooleem sen amma mu matal leen maanaam yenent sallallahu alayhi wasallam du wut rek ku yàlla yónni ci ben peuple daf ka yónni ci aduna bi yépp kenen kudut mom nak lu ko nit ñi tontu tontu yàlla yóndiwu ko ci ñi ko tontu ci peuple am rek la ko yónni yàlla wax na ci alquran wa ma arsalna min wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi mu ne man yóndiwuma benn yenent lu dut ci langu làkku ñoñam yi loolu ñu bëri ci mu fassiru nay nee nañ li muy firi mooy que ne yenent bu nekk sa waa ñoñ rek lañ la yóndi ci ñoom moo tax nga doon gis lu mot ay fukki yenent ci benn zaman waaye yeneen ci moom yàlla daf kaa ne wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas yónni wu ma la lul ci mbooleem nit ñi yëpp bashiran wa nadira sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bàyyi ñas ni wa hatta ataana ba mu dikkal ñu ad diinu diine gii maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jubalee arab yeeg ajam yi hatta ba nga xam ne ataana dikkal nañu addiinu diine bi wal ilmu ak xam-xam wattuqaa ak ragal yàlla walillaahi shukrun walillaahi ñeel na yàlla shukrun ngërëm bi nabiyi ci yenent bi mu ñu may taxattama war na maanaam war na ngërmaande ñeel yàlla ci xéewal bi nga xamante ni may nañu ko muy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waqat saara mujj na fii naa ci ñun almuslimuuna ay jullit maanaam am nañ ay kuréelu kuréelu jullit fii ci suñu réew yi wa indana moo ngi ci ñun itam a'immatu ilmin ay ay ay ay imaam ci xam-xam saalihuuna ñu sell takarruma ñu yàlla teral loolu moom jarul sax jeex ko xool Sénégal gi xool Mali xool Mauritanie yu mel noonu di nga gis ne yàlla may nañu wax dëgg yàlla may gu rëy ci ay borom xam-xam ci ay waliyu ci ay saalihuun ci ay siddiq donte ne Afrique noire fii yàlla xañ nañu nubuwa waaye mën nga ne fii mooy markazul wilayati waxoon nañ ko fii ci benn suñuy vidéo ñu ne nubuwa dañ koy wax comme nahaaru nubuwa wilaaya ñu wax ko laylatu laylatul wilaaya ndax nubuwa dafa leer mu feeñ ci ñi leer yàlla musta yónni yenent bu ñuul waaye nubuwa leeraangeem moo tax maanaam shariatu leer gi mu leer ci mbiram moo tax yàlla di yónni ay nit ñu weex waaye wilaayatu ndëgam dafay nduroog peyu yàlla bi bu njëkk moo tax en général ñu gën a bëri ci awliyaa yi ay nit ñu ñuul lañ suufiyaan kay dañuy wax ne assuudu maadinul wilaaya bu ñu bañutoon ba tey itam yaatal dinañ indi ay tegtal yu bari ci loolu bàyyi Ñas mu ne wa fii naa moo ngi ci ñun itam rijaalun ay góor saabiquuna ñu raw ñoo xamante ne dañoo raw ci biir góor ñi wa indana moo ngi ci ñun ba tey lil aqtaabi téere bi lil aqtaabi la def boo bëggee wasn bi baax da ngay wax lil aqtaabi baxru tawil la fuulun mafaailu fuulun mafaailu mu ne wa indana moo ngi ci ñun lil aqtaabi pour wasne bi baax laa wax boobaa da nga daan wa indana mu ngi ci ñun xatmun ku matal lil aqtaabi ñeel xutbu yi habhu na nga ko may kanzan koom mu talsama badi bu ñu réyal bu ñu màggal mu ne salaatun julli wa taslimun ak salmal ala taaha ahmadin yàlla na nekk ci yenent bi sallallahu alayhi sallam wa aalin mu nekk ci waa këram wa asxaabin ak ay saxaabaam siraatan yoon boo xamante ni muqawama bu ñu jubal la لولو مم ماي قصيدة عبا القلب نيجي نان يالا يالا دفل نيجي فتح مينو ليرو قصيدة بي مينو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بنجي حلي قصيدة بي يالا يالا ما يتمد نعم شانس جانغ قصيدة يبري في اج مولد بي يالا جوتل نيكو تي جام ان لك اي خول يو خمنتني مانغ نان بدويل تي مانغ يالا بي يالا من نكو يالا نكو يالا دفل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته